yow lan ngay wax munoo bàyyi Jokal Jokal du sa morom nekk ci difficulté moo tax ngay laaj Jokal. non Jokal dama ko estimé woon am fu ma ko teg mais dama ko mere moo tax ma bëgg a bëre ak moom daanu yi muy daanu moo bari dama bëgg dama ko bëgg a génne làmb ci. su ma ko bàyyee nii day gën a bonloo sama xol ma koy bàyyi di ko seetaan gars yi di ko gën daan day ñëw man ma génnee ko làmb ji mu jeex. yow ma ngaa jël avance jok barke Seydina alxuraanu Karim su ma bëreewul ak Jokal bëreewuma ak keneen pare naa ci amatuma choix. Jokalante ngay attaqué fi mu attaqué woo Jokalante Kéba ngay attaqué. Kéba Jokel na ñëw ñu bëre man maa ko choisir maa bëgg a moom wax ji jeex na. na ñëw ma génne ko làmb ji pour Kéba noppalu ci indi yi mu koy indi muy daanu Kéba noppalu toog nekk amateur wala mu nekk président CNG mais Jokal moom làmb ji dootuma ci toog di ko seetaan muy bëre keneen man maay bëre ak moom jëlee ko làmb ji. daa nekk ci ay difficulté rek mais bu sa Jokal ndaana. waaw difficulté yooyu dama cee bëgg am palmarès man na ñëw. dama mottali ko sa bopp ci moom. dama bëgg a mottali ko sa bopp ci moom mais Jokal gi ngeen ko daane buñ ma ko joxee ma daan ko ñii lañ bëri démb barki Serigne Ba jokkeel laa bëgg bëreel jeex na amateur yi nangu nañ maa kéwal combat la maa jégal combat la billaahi wallaahi taalaay maa leen mën barki Serigne Ba bëre wala daxaa ñëw ci moom ci victoire la jógee day dem jël kay ku nekk ci victoire mais bu mu jël ku nekk non maa bëgg a génnee làmb ji ba pare doo ko ñëw ci kéwal doo ma jokkeel yow damaa seetlu ñi nekk ñi nekk ci ci phase bu ñuy génnee làmb rek ñooñu ngay laaj pour buux leen ñu génn gis naa fi nga laaj Zos léegi yaa ngi waat ci kéwal léegi waat yaa ngi waat ci Jokkel da ngaa jàpp ni ñooñu dañoo jeexal. xam nga ban la combat bi moog Pokola. Pokola. non daa am lu ko jiitu. maalaw seera sag fa Jacob Baldeng fa ñooñu laay wër su ma leen mënul am ma jëli Jacob ñoo ñëpp nangu nañ mais seeka nag kaayam wax la damaa jóge ci ay trente et million millions bëri ko maag Alaaji Mbay